Amen koo yar seen moroom moomee wutut ngërëmu yàlla li ngeen ko wutee te ne ci caaxaan su leen gisee yéen ne topp bëtam na toq ci yéen man ngeen koo yor yar dana kookee dana xam ne yéen ñii li ngeen nekk mooy dëgg ak kooka lu mu dëng dëng dëng dana xam ne yéen ñi ne ci àll bii di liggéeyal yàlla ak yonent bi ci barki Serigne Touba ak Serigne Fallou yéen ñii mel nii ngeen mel dana xam ne yéen a ngi ci dëgg yéen a nekk ci dëgg. ku leen gis te newul ci dëgg te gis leen yéen ñii day. ku leen ku leen gis te newul ci dëgg te gis leen yéen ñii ah, day. de ak gisantu leen nee na damaa xamut ñu leen di gisee ak gisantu leen waaye ku leen mën a gis te ak lu mu jubadi jubadi ku jubul ñemewu te melokaan woowee day yar ku jubul nee dana leen wax lu xoromu nee na bi muy jàng fële ci Saloum am na ku ñuy wax Babacar Toog wirdu maam Cheikh Ahmed Tidiane sax la yor. waaye dafa amoon bitik. waaye dafa amoon téeméeri waaqi. moom moomee mu doon ma bindloo téeméeri waaqiaat. di ma ca way waaqiaat bu ne benn benn bu ne fukki dërëm. muy junni. ma nangu. waaye wax junni waxaan boobu téeméeri wax junni ba. nee na téeméeri waxaan yooyu ma ko bindal junni ba ma ca fay. te yoroon bitig. te junni bépp mbiskit laa ko jël. <laughs> man nga jël ma sëñ bi daal daa xam ne am na ci borom bitik bi junni saa yu xëyee léeg mu jël kilo biscuit wala ñaari kilo rek moom jeex waaye nag bind ma ko man dong waaye nag waa xëyee nag bind ma ko man dong nee ndog ndog yi ñoo ma ci jàppale nee na nee na ma woo gaañ ne leen ah kenn ku ne ci yéen daal lu bind ci waxee rek ma compté li bis mu toll jox la. nga xam ne waxee moom diir bu néew rek Falaamboo nañ ko bind ko mu àgg yooyu yëpp booba kër Serigne Fallou dawal gaa ngi fi ak ceeb bi ak yu sedd yi waaye booba wut ngërëmul yàlla. moo ma jaraloon loolee. ngërëmul yàlla nag am ko yombul de yombul nag ndax ngërëmul yàlla ku ko am rek defaru nga defaru nag yombul adduna ji ak àllaaxira nga jëm nee na kooku yombul de lu mel ni lii ngeen di def rek moo koy maye kon nag yàlla na leen yàlla def ay mag te sàmm leen ngeen yegg fa ngeen bëgg a yegg te am nañ ci yaakaar nag bu baax a baax fii nag fii nag mooy Touba Bogo mu Serigne Fall Serigne Fall nga xam ne mbër yu mag yaa mag a mag mbër yu mag yaa mag a mag dafa am ndaje Serigne musta bokk ci ñiy maslaa Serigne Fallou musta bokk ci ñiy maslaa maslaa ci diine. maslaa ci diine. wala maslaa ci yoonu murid. wala maslaa ci yoonu murid. dañoo am mu ñu dañoo am ndaje mu ñu woote woon ca Ndakaaru. ndaje ma ka ko jiite ndaje ma ka ko jiite woon. booba moo yilifoon France. booba moo yilifoon France. xaw ma général Pétain lañ koy wax daal kilifa yooyu. lañ koy wax waaye daal ci kilifay France yooyu la bokkoon. waaye am na ndaje moom mu doon def moo xam ne fii ci Sénégal lañ ko doon def li tax ñu defee ko fi nag nee na xam nañ ne senegal dafa bëri ay marabu te ñu a waxtaan ak marabu yi ñu woote nag ci palais ba def nañ fa salle boo xam ne bii nag bu mag la ñu ragale salle bi ay photo yi. kilifa diine gu ñëw rek ki nga xam ne mooy joxe fii toog ànd ak yow ba ci sab toogu mu ne la toogal fii nga toog tubaab bi nga xam ne moo ñëwoon ngir loolu mi ngi taxaw ci buntu saal bi moo soxnaam kilifa gu agsi rek mu jox la loxo balaa dindi loxoom rek. balaa dindi loxoom rek. ji tàllal loxoom. nga daal di jël boobu bëgguñu ko sax. booba ñoom day bëgguñu ko sax. waaye. waaye. tubaab bi boobu ñeme ko ba kii ñeme tubaab bi ah booba ñeme ko noonu yombul moom da ngay maslaa rek. maslaa rek. maslaa boo xam na maslaa boo xam suñu borom nangu na ko bu fekkee. dangaa ragal rek dangaa ragal rek moo la tax a maslaa moo la tax a maslaa waaye li nga gëm moom mi ngi ceew waaye li nga gëm moom mi ngi ceew loolu danañ ko nangu waaye Serigne Fallou Mbacke mu loolu du ko ci fekk waaj joxe loolu moom bokk moom Serigne Fallou ba ko waaj ne jàpp loxo rocci rocci jabaram ne ko nii loxo jabaru waaj na ko nii loxo Serigne Fallou def nii loxo banque ko waa ji nag jël ko yóbbu ko mu waxee la wax ba noppi. waxee la wax ba noppi. ba génn. ñoom xalif général yëpp dañoo àndandoo bokk dem kër sëriñ Fall booba sëriñ bi moo leen mag moo ci mag ci ñi fa àndoon. am ci kilifa yi ku ko ne. sëriñ bi ah tubaab bi ndax tubaab bi day dañoo bëgg seen jabar lool. waaye gis nga sëriñ Fallu ci teggin yi. mu ne ah tubaab bi day bëgg naa lu ko neex de. waaye bëgg lu ko neex nag. lu ma taxa def lu ma sama diine tere. Sëriñ Fallu Mbàkke yooyu moom daw ci maslaa ñu toog foofu di waxtaan ba yàgg kilifa gi dellu na ko yow daal waxtaan wépp ànd nañ ci ànd nga ci yow mi itam kenn ku nekk yor say këyit kenn ku nekk yor say këyit këyit yi nga xam ne moom la ñëpp signé kon kenn ku nekk am na ci wenn waaye yow xam naa ne soo demee. mii nag xam naa ne soo demee. liñ àndandoo ñun ñëpp. d'accord ci. boo demee da nga ci génn. sa waa kër ñi danañ di ci génne. ndax yow moom amuloo bopp. rek booba bi muy wax ak moom loolu lépp Serigne Fall mi ngi sonn. fekk loxo bi teg ko ci bopp bi nii. sëriñ Fall daal na bërit toog. Oh. ko diw waxaat ko mu waxaat ko ko. bi tuuti. ba bi mu ne ko diw. maslaa bi maslaa nañ ko fi bàyyi rek. ñu di ko def maslaa suñu diggante. waaye maslaa bi bu ñu ko fi jëlee kat. ak si fii daal di jël loxo bi teg ko dajoor bi nag ak si fii. dëgg la. ba yàgg. nee boobu nag fi ñu toogoon mooy ci kër gi kër sëñ Fall waaye ci kaw étage ba lañ ne. waaye néeg bi daa am fenêtre bu jàkkaarloog tëli bi. sëriñ Fall na ko kaay ma wax la waay. mu daal jóg. sëriñ Fallu sëpp ci fenêtre bi. moom itam. mu sëpp ci fenêtre ñoom alaaji Abdou Aziz Sy ak Baye Niass ñoom kenn ku ci nekk jóge fa nga nekkoon ñëw fekk si leen fii sëpp ci palanteer ndax ñoom kat xam nañ suñ fàll mii nar naa wax dara ñu seet ba xam suñ fàll lim nar wax lu mu suñ fàllu nekk kilifa bu gis nga garab gii ni mu mel mu ne ko waaw mu ne ko gis nga car yi ak xob yi ni ñuy yëngatoo. mu ne ko gis nga taatu garab gi. ni mu ne dégg rek. mu ne ko noonu laa dama am saayir. am baatin. sama saayir. mooy car yi ak xob yi ni ñu yëngatoo. noonu mooy sama saayir. dama koy bàyyee ñi ma yaakaar. ñu di ko jariñoo waaye gis nga taatu garab gi. waaye gis nga taatu garab gi. ni mu ne dégg rek ni mu mu ne ko loolu mooy sama baatin. mu ko loolu mooy sama dara mënu ko yëg dara mënu ko moomu noonu la meloon. di doxal yu mel noonu. ci digganteem ak boromam. moom moomee. moom moomee yàlla defal ko lim ko defal. moom moo moomoon barab bii ngeen di ko nii xam ngeen ne yàlla dana leen dimbali àdduna ak alaxira nag nee na mi ngi leen di ñaanal ngeen noppalu lu des ci ngoon gi rek bu suba ak jàmm bu nu fi yàlla bàyyee ñu tàmbalee ci bunt ba nële suñu Abdou nii buntu bële ci la ñuy tàmbalee ci wet gële wet gële boo demee ba ci buntu ba mooy wet gii des rek mooy wet gii des rek moom la ñuy tàmbalee ci buntu ba jiital ko rek wuti bi wàcce woon rek jërëjëf mbooloo mépp ne ñu ngi leen ñaanal nga yàgg ci dëgg ñii de ñii de Mbàkke joxoo leen njëriñ rek yem ci yaa ngi leen di wutal lu ñuy amee njëriñ mu taxoog ñoom dëgg la dëgg la koo bëgg a jëriñ li wajhihi alkarimi faaraqtu alsila wa qaada li thamana laazamtu alxila xaana shuruuci fi alladi lixtaara man laa yazaalu faacilan muxtaara maxaa tawajjuha cidaahu lii bila ithbaatihi min cumri taqabbala محا توجه عداه لي بلا إثباته من عمري تقبلا دعا كتابه فؤادي واللسان إلى التلاوة وفزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي لي, للجنا لي للجنان لائق لم ينحني مخوف أو عائق وينتحي لي للجنان لائق لله رب العالمين كلي ولم أكن بمشرك أو كلي أصلح ربي لي جميع الحركات وسكناتي والجميع بركات هدم باق لا يزال هادما بنا عدوي لا يزال نادما ربحت في ثمن ما مني اشترى ربي وبيعي عند ربي سترا بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا بادر لي كرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب إلى سوى ذات انتحى الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لم ينحني ذو كفر أو فسوق أو مشرك ولي يصفو سوقي علي من الله بالرباح وبالسعادة وبالمباح لي قاد ربي ذو الجلال الأعظما ولسواي فر من تعظما من لكنيز الأراضين والسماء وكونه لي بخير الرسما من لكني ذو الأراضين والسماء وكونه لي بخير الرسما يقود للخيرات دون ضر جاعل كلي في أجل البر نفعني نفعا يدوم سرمدا وقاد لي يمنى البشير أحمدا أشكره نعم بلا كفران بالحل والماء على الجيران له خطابي ونفى الخناسا وشكر اللزوم والجناسا رضيت عنك شاكرا وحامدا أظهرتني أطفأت ضري خامدا حطني للجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملكتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بلا افتراء الله الأحد الأكرم الصمد نعم الملتحد نفيت يا باقي لغيري من جحد نفي الذي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكرام موجود قديم باق مخالف فإكرامي يدوم أكرمتني إكرام موجود قديم باق مخالف فإكرامي يدوم لك بلا افتقار القيام بالنفس يا فردا له الصيام لك بلا افتقار القيام بالنفس يا فردا له الصيام رددت ما, ما قصدني من ضري لغير ذاتي ومحوت ضري حفظتني من كل مكروه ومن كل حرام وضلال لم أمن يقودني الحلال والعلوم النافعات لك يا عليم ملكتني نفسي مع الهوى بلا مكر وعمري لديك قبلا سألتك اليوم بوجهك الكريم كونك لي مع فلاح لا يريم بيعي تقبلت بلا إقالة وسلعي تخفى بلا مقالة حذفت أن يقصدني عدو بضرر فإنك المرجو إلى سواي قد صرفت حسدي مع البكاء عاصما من مفسدي نفيت يا باقي لغيري اللعين وكلما والى اللعين يا معين أكرمتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بلا انتهام مرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفى يا من بنور واسع قد وصفا إلي قد تأقل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت ما لي بناه من جحد يا خير مرجو وخير ملتحد أكرمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتابة وبالحلاوة بينت لي تبين من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفاء درجتي تعلو وليست تنخفض ومن نحى من الورى خفضي خفض إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تبارك وتعالى أن ناظم هذه القصيدة أطلقه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة والله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أكرمني الرحمن والرحيم وانقاد للإكرام والترحيم لجاري الرحمن والرحيم قد صرفت أمري وعمري فقد رضي عني الله والرحمن نعم الرحيم قاد للأمان حبي لله وللرسول وللكتاب ليقاد سولي مد لي الرحمن والرحيم ما لاختاره بلا أذى معمما أكرمني الدنيا وأخرى الأكرم وللجنان قادني المكرم نزعني الرحمن والرحيم من مكاره فب نزعني الرحمن والرحيم من مكاره الدنيا فبالشكر قم إلى سوى نحو انتحى مكاره أخرى إلهي وإني جاره لم ينحني الضرر في دنياه ولا يريني الضر في أخراه رضي رحمن رحيما لم يزل عني وقاد لي ما منه نزل حبي للرحمن والرحيم لم يترك أذى ينهو جهاتي أو ألم يسوق جملة المكاره إلى غير حياتي من أدام للإله مد لي الرحمن والرحيم ما لي به ينقاد لي ترحيم لا تبديل لكلمات الله والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأغن جميع أعدائك عن الركون إلى أحبائك وأغن جميع أحبائك إلى عن الركون إلى أعدائك حتى يصير فريق في الجنة وفريق في السعير واجعل هذه الأبيات التي أخذتها من الرحمن الرحيم رحمة لجميع العالمين الله قد سحزها الأحزان والحرجا عن أمة المصطفى من طيبه أرجا لقد تبين أن الله خالقنا قد قدم المجتبى والنور قد بلجا رد الأذى والعنا عن أمة لهم ما لا يرى لسوى من فيهم ولجا حاز النبي من المولى على منن والضيق والكرب عمن حبه خرجا محمد زينة الدنيا ولذتها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا أزكى صلاة بتسليم على وزري محمد من محى الأدران والعرجا نفى الأذى برسول الله مالكنا عمن أحب رسول الله من بهجا الله قدمه قدما وفضله على الورى ولهم خير الهدى نهجا لا شك أن رسول الله سيدنا فاق الورى وبخير الخير جاد فجاء رام المنى لذوي الإيمان من ملك قاد المنى لذوي الإيمان ثم فجاء حاط المحيط ذوي الإسلام عن ضرر مذ سنة المصطفى قد بينت حججا حاط المحيط ذوي الإسلام عن ضرر مذ سنة المنتقى قد بينت حججا يحمي الحفيظ ذوي الإحسان عن تعب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 mbooloo mi nañu dégloo sëriñ baa ngi wax ak yéen de nee li ko tax a ñëw fii muy ñaanal leen ak sànni leen ay kàddu tuuti sëriñ Tuuba lii rek lañu doon jàngal liggéey bu rëy bi ngeen liggéey fii lu fi ñore ñu jaay ko def ko xaalis ñu xaalis téye ko léeg-léeg am ñu ñëw ñu ñëw ñun de sëriñ bi dañ doon liggéey jàkka joo xam ni bëgg nañ ko ñu ci doo mën a def lépp waaye bu boobaa it ca barkeelu. am ñoo xam ne. dañuy bëgg a dem Louga. wala Ndar. wala feneen. seeti fa seeni bokk. nga mosal leen loo xam ne jóge li ma wax lii lépp mën caa jóge yéen ñi ko liggéey lu ngeen yaakaar yéen seen bopp ngeen ko defal xam ngeen ne loolu faw sunu borom fay leen ci Sëriñ Tuba loolu rek la doon jàngale jàngal nit ñi liggéey liggéey bi ca lañ mën a defee loo xam ne. ca lañ mën defee loo xam ni. dañ ci am ngërëmul yàlla. fi mu ne lii ngeen def lii. mooy li ma leen wax. mooy li leen wax. mbay dana ci génn moo xam ne. mbay dana ci génn moo xam ne. buñ ko jaayee. buñ ko jaayee. xaalis a ci génn. xaalis bi ci génne. xaalis bi ci génne. mooy def lii ma leen wax lépp. mooy def lii ma leen wax lépp. te seen loola. te seen loola. te loola ci seen taxawaay la jógee. te loola kat seen i taxawaay la jógee. am koo xam ne. am koo xam ni. day amul lëf ci poosam. day amul lëf ci poosam. ñëw ñëw. yëkkati ko yëkkati ko. jox la ko jox la ko. nga boole ko ci. nga boole ko ci. lii ngay defal ñooñi soxla. lii ngay defal soxla. waaye ñooñu. waaye ñooñu. li ñuy def. li ñuy def. lu mu doon. lu mu doon. du liggéeyal yàlla. du liggéeyal yàlla. Serigne Touba loolu rek la doon jàngale. jàngal nit ñi liggéey. ak joxe addiye rek. addiye ji. lii ma la wax rek ci lay yëngu. ak loo xam ni. yow mi ñu ko jox yow da nga ci mën a barkeelu ci mën a barkeelu. ak sa njaboot. ak koo xam ne. ak koo xam dafa ñëw bokk ci. ndax koo gis lii ma wax di daje ci moom dana joxe loo xam ne ku ko togg xaaj ba xaaj ba. waa kër ga duñ ko lekk. waa kër ga duñ ko lekk. ñeneen ñuy jóge feneen. ñeneen ñeneen jóge feneen. jaar fa jaar wala ñu yend si fa. wala ñu yend si ñoo jóge. li ma wax lii lépp mën caa jóge. yéen ñi ko liggéey yéen ñi ko liggéey. lu yaakaar lu ngeen seen bopp ngeen ko defal ngeen xam ngeen ne loolu faaw sunu borom fay leen ci. Serigne Touba loolu rek la doon jàngale. Serigne Touba loolu rek la doon jàngale. jàngal nit ñi liggéey. jàngal nit ñi liggéey. liggéey bi. liggéey bi. ca lañ mën a defee loo xam ne. ca lañ mën a defee loo xam ni. dañ ci am ngërëmul yàlla. fi mu ne lii ngeen def lii. mooy li ma leen wax. mooy li ma leen wax. mbay dana ci génn moo xam ne. mbay dana ci génn moo xam ne. buñ ko jaayee. buñ ko jaayee. xaalis ciy génn. xaalis génn. xaalis bi ci génn xaalis bi ci génne. mooy mooy def lii ma leen wax lépp. te seen loola. te seen loola. te loola ci seen taxawaay la te loola kat seeni taxawaay la jóge. am koo xam ne. am koo xam ni. day amul lëf ci poosam. day amul lëf ci poosam. ñëw ñëw. yëkkati ko yëkkati ko. jox la ko jox la ko. nga boole ko ci. nga boole ko ci. lii ngay defal ñooñi soxla. lii ngay defal ñoo ñooñi soxla. waaye waaye ñooñu. li ñuy def li ñuy def. lu mu doon. lu mu doon. du liggéeyal yàlla. du liggéeyal yàlla. sëriñ bi loolu rek la doon jàngale. sëriñ liggéey jàngal nit ñi liggéey. nit ñi liggéey. ak joxe addiya ak joxe addiya rek. addiya ji. addiya ji. lii ma la wax rek ci lay yëngu. lii ma la wax rek ci lay yëngu. ak loo xam ne. ak loo xam ni. yow mi ñu ko jox yow ci mën a barkeelu. da nga mën a barkeelu. ak sa njaboot. ak koo xam ne. ak koo xam ne. dafa ñëw. dafa ñëw ndax. koo gis. lii ma wax di daje ci moom. lii ma dana joxe loo xam ne. dana ku ko togg. xaaj ba xaaj ba. waa kër ga duñ ko lekk. waa kër ga duñ ko ñeneen ñuy jóge feneen. ñeneen jaar fa jaar fa. wala ñu yend si fa. ñoo koy tibb. ñoo loolu lépp. loolu lépp. addiya addiya. ak liggéey bu mel nii. ak liggéey bu mel nii. moo koy def moo koy def. man fi mu nekk nii. man fi mu nekk nii. daa ngeen dégg ne Sëñ Tuubaa daa ngeen dégg Sëriñ Tuubaa da daan teg kaamil yi. ci kaw lalam. ci kaw lalam. tëdd eh, pompe ak laj koloñ. moom sëriñ bi mu tëdd suuf. loolu lépp. loolu lépp. sëriñ Touba daf ko doon jàngale rek. sëriñ Touba daf ko doon jàngale rek. ngir bëgg nit ñi bëgg nit ñi di def lu baax. man fi mu nekk nii. man fi mu nekk nii. bala maa xëy jàng. bala maa xëy jàng. li may njëkk a def. may njëkk a def. mooy sama kaamil yi. mooy sama kaamil yi. li may jàngee. li may jàngee. ak xasida yi may jàngee. ak xasida yi may jàngee. moom lay njëkk a laaj moom lay njëkk ko lañ. sama loxo yi nga xam ne. sama loxo yi nga xam ne. moom lay téye téere yi. moom lay téye téere yi. dama koy pomp dama koy pomp. ngir bëgg lépp saf saf saf ngir bëgg lépp saf laaj ko lañ. bu ko defee nag ma soog a ñemee bi pomp ko sama bopp. loolu. loolu. li tax ma di ko def. li tax ma di ko def. dama koo jàng rek. dama koo jàng rek. ci sëñ Touba. ci sëñ Touba. moo tax sëñ Touba yooyu mu daan def yëpp. moo tax sëriñ Touba yooyu mu daan def yëpp. da ko doon jàngale. da ko doon jàngale. ngir bëgg nit ñi di def lu baax. ngir bëgg nit di def lu baax rek. koo xam ne kii nag. koo xam ne kii nag. lii daje ci ci ci ci si. lii daje ci Serigne si. dañ di ko tasaare. di ko tasaare. daje gi ñuy daje ci moom. daje gi daf laa metti daf laa metti ba nga bëgg koo yàq. ba nga bëgg koo yàq. di ko neneen. di ko tudd neneen. la ngay wut. la ngay wut. ba nga jàpp ne boo ko amee. ba nga jàpp ne boo ko amee. da mën a yàq loolu. da mën a yàq loolu. yàlla sunu borom yàlla sunu borom moom du la ci farle. ba àdduna sosoo ba léegi. ba ba léegi. ñi yàq lu baax. ñi yàq lu baax. suñu borom musul farle. suñu borom musul leen a farle. yéen a ngi ndax yéen a ngi dégg li may wax bu baax. te di ko xam boole ci. koo xam koo xam ni. da ngaa yéene. yàq lu baax. yaag ña la ciy dimbali. yaag ña ciy dimbali. du ngeen ko mën. du ngeen ko mën. te yéen a jë. te yéen a jë. dana dal seen da seen seen seen seen ndodd. te yéen a jooji dana dal seen ndodd. te àdduna yàggul. te àdduna yàggul. paxa ngi nii jege lool. paxa ngi nii jege lool. yéen a jooji ku ko yóbbaale sam pax. yéen a jooji ko yóbbaale sam gis. da ko gis te da nga ko rëccu. àdduna yàggul de. àdduna yàggul de. jërul jarul. yéene. yéene. wala ngay fexe. wala ngay fexe. loo xam ne. loo xam ni. day tegee sam ndodd. day ngeen di def. xool xool bi mu set rek. tool bii ni ko bayee ba mu set rek. luñ fi bay. luñ fi dana nangu. dana ndax set na. ndax bu nangoo. bu nangoo. ñu jaay ko ñu jaay ko. def ko xaalis def ko xaalis. di ko def nii ma la wax. di ko def nii ma wax. koo xam ne. njaboot am nag njaboot. te amul doole. te amul doole. ñëw ci sa wet ci sa wet. wax ak yow wax ak yow. nga ndax liñ bëgg lépp kat doo ko mën. waaye da nga def dara. waaye da nga cay def dara. loo xam ni. loo xam ni. kooka. dana ko yóbbu. dana ko yóbbu. dundal ci ak njabootam. dundal ci ak njabootam. juróomi fan. juróomi fan. wala fukk fukk. jàkka yi ñi koy tabax léeg mu tag jàkk yi ñi koy tabax léeg mu tag te léeg-léeg mu tag te léeg-léeg mu tag ñëw ñëw wax la ko wax la ko nga barkeeloo ca nga ca dara ak ñii ma la wax ak ñii ma la wax ñuy tukki fii ba Tamba tukki fii ba Tamba ba Ndar ba te lañ fay wuti te ñoom kat lañ fay wuti mooy seeti seeni bokk mooy seeti seeni bokk ak bokki jullit yi ku faatu ñu war a dem sarax sa. ku faatu ñu war a dem ca sarax sa. wala ku faatuwul dem seeti ko. wala sax seen mbokk di dem seeti ko. nuyu ko nuyu moom. la nga ko jox la nga dem dem dikk. te da nga fa bàyyi dara. te da dara. leen loolu. seet leen loolu. te loolu lépp. te loolu lépp. ci seen liggéey bii rek la ci seen liggéey bii rek moom la sababoo. la nga leen di jox. la leen di jox. ci seen liggéey bii la sababoo. ci seen liggéey bii la sababoo. ñiy joxe addiya. ñiy joxe addiya. li ñuy jëlee ci seen poche. li ñuy jëlee ci seen poche. di ko joxe. di ko joxe. loola lépp. loola ci addiya yi la sababoo. yooyu la kon nag na xam ni. loolu mooy liggéey loolu mooy liggéey bi. Ah, def loo xam ni. jaami yàlla yi ak néegi yàlla yi dana dem ci ñoom loolu kay kuy wut ngërëm ci yàlla xam nga ne loolu kat mooy maye ngërëmul yàlla kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xam ngeen ne seen coono yi yëpp yi ngeen def ak naaj weeg ak lépp ngir bëgg fii set. ngir bëgg fii set. ngir ñu mën fee bay. ngir ñu mën xam ngeen ne loolu dara la. la de. dara la de. te bisam dana ñëw. te ñëw. jërë ngeen mi ngi leen di ñaanal. waaw. déglu leen mi ngi leen di ñaanal nag. yàlla sàmm leen. def leen ay mag. defal leen ay xéewal. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama barke borom Touba barke El Hadj Fallou Mbacke barke gaa yu baax yëpp amin iyyaka na'budu ila siwaya wajjaha arrahmanu kulla aduwin jaani al-amanu yaqudu li ma shi'tu bir-ridai lam yanhu nahwi dararu al-qadai yaqudu lil-amana was-surura man li siwaya wajjaha al-ghurura إلى سواي الضر كالشيطان ما لهما علي من سلطان كرمني مدح شفيع السجد بجاهه لم أر من لم يسجد نهى إلى مسرتي من عبدوا بالمنتقى لم أر من لم يعبدوا على النبي ما لا يعد من صلاة مع سلام قد يزيدان علاه بجاه خير العالمين أحمدا صرت خديمه وكلي حمدا درجتي كوني خديم المنتقى وبي يباهي أبدا ذوي التقى درجتي كوني خديم المنتقى وبي يباهي أبدا ذوي التقى إياك نعبد وإياك نستعين إلى إله الله قد وصلت وعن رسول الله من فصلت يقودني الله إليه بالرسول وانقاد لي عند مسيري خير رسول يقودني لله خير مرسلي وقت المسير قائدا بعسلي إلي قاد مالك التلاوة وقاد لي وسيلة الحلاوة كفاني المستهزئين الله بمدح من على الوراء أعلاه نفعني الله بما لي سلب من الخيور ولي العدا غلب عليه أسني والثنى لا أحصي عليه نعم ذو الجمال المحصي بان لي اليوم وبعد اليوم كون الإله لي بغير لوم دفع ما لم يرض لي إلى سوى ذاتي وأعدائي بخيبة سواء واجهته اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين سرمدا أحمده على النبي أحمدا أزكى سلامي ذي جمال مرسل على رسول فاق كل مرسل أزكى سلامي ذي جمال مرسل على رسول فاق كل مرسل كون ابن عبد الله خير الناس ساق لغير الجهل كالخناس نبينا أحمد لا يبارى ومن يباره يحس تبارى نبينا أحمد لا يبارى ومن يباره يحس تبارى Yeah.